sama yaa ne ko boo ma ko waxatee ma jaar fu bon ak yow c'est la première fois et la dernière fois nga ma naan sama doom ji lii wala laa bu ma ko waxatee ah. kii bàyyi ko mu liggéey liggéey boo ko mënta jàppale nga bàyyi ko depuis jour boobu la gëj sama yaa naan ko sa ak wér na. parce que comme manipuler woon na sama yaay ci première moom manipuler woon na sama yaay ci première période ba ma feebaree moo moo moo dugal sama xelu yaay nañ ma yóbbu fan problème mu fan bi yëpp moom moo ci taxaw parce que boo amee jabar bu siiw mu am dépression yow nga ni. déjà joxoo ko xaalis mu ñëw mu dem ci sëriñ faju parce que wax nañ la mystique la nga ne yow doo ko jox mais jaral na la woo say ñaari frère muy chauffeur am moor ak beneen beneen frairam bi tur bi laay fàtte xooma nu mu tudd xaadim la xooma ñaari frère am ñëw gaare oto samte dama am dama am ay caméra caméra yëpp disque dur dama ko jox sama yaay mu téye ko woo ay ñaari frère am ñu ñëw sama buntu kër sama kanamu doom ñu jàpp ma dugal ma ci oto par force yóbbu ma hôpital euh, hôpital Fann hôpital Fann ñu pikiir ma sans mon consentement bu pare pikiir ma sans assistance de ma mère bañ ma doon pikiir sama yaay dafa génn ci biti xale góor yi ñoo fa nekk imaginez vous lu mel ni hôpital Fann nga pikiir nit sans consentement ñu ne ma dama ne leen bu leen ma pikiir bëgg leen ma pikiir ñu forcé ma pikiir ma imaginez vous sama yaay ko nee naa ak bu leen ne mooy pikiir sama yaay taxaw sama yaay taxawul dañoo génne sama yaay ci biti te docteur Khady moo ko def li ma dund dafa metti bu doon sax dañ may piqûre mais sama yaay na taxaw mais pour doon góor ñi taxaw ci sama yaay taxawul sama yaay mooy sama titulaire su ma fay gis nga bu feebaree yaayam ak papaam ñoom titulaire am yaayam papaam ñoom ñooy responsable yi ñoom ñoo war a taxaw fi ñu koy piqûre ñu assister ma dafa metti feebar dafa metti ñu jàpp ma piqûre ma d'accord mais dañ ma doon piqûre chauffeur bi moo taxaw xale yu góor yi ñoo fa taxaw sama yaay nekkul ci salle sama yaay ci salle d'attente bi la toog imaginez-vous ma dund loolu yépp toog noppi diñ garder sama courage mais dañ ma wax loo te buñ ma wax loo way problème dina egg feneen fa dul fii dina c'est que ñi impliqué dafay bëri te bëgg moon revenir revenir ci problème bi parce que xastoo naa ko ba fàtte mais il faut que ma wax ko pour ma mën a am jàmm nañuy dimbali ma imaginez bu sama doom tiim sama doom a maale jàkkaarloog ñuy jël yaayam dugal ko ci oto lu tax woowul waa waa waa femme ñu ñëw sama kër am na déplacement médical am na lu tax def defuñu déplacement médical man dama siiw ñu suturaal ma suturaal sama sama tur ñu ne ñu indi leen ci kër gi ñu jàpp ma ci kër gi soigné ma ci kër kan moo bañ a faju mais dañ maa dañ maa weer dafa ma weer parce que foogoon na ne su ma wooyee damay weeree ak su ma wooyee damay jëñ te image yu dof Sénégal boo ko xasee ba am du dañ mais je ma su battue je me suis battue parce que xam naa li mu bëggoon munu ma yàq si est petit pour ma yàq ma munu ma woon a yàq te képp ku ànd ak moom kenn munu ma yàq nit duñ ko yàqee noonu loolu la def parce que bu nekkoon un homme un homme duñ naan jëkkër ju baax bu nekkoon jëkkër ju baax la ma yàlla may daf ma naroon woowal waa sami municipal sama biir kër ñu naxtaan ak man piqûre ma d'accord ma nelaw li may lekk ñu naxtaan ak man ba li may ñu def ay somnifère li may lekk mais defuñu ko dañ maa forcé mbedd bi yëpp taxaw waa almadi bi yëpp taxaw waa ngoor bi yëpp taxaw mu dugal ma may yuux bàyyi leen ma bàyyi leen ma bàyyi leen ma demuma ñu forcé ma ma dem ñu forcé ma ma dem fann ñu piqûre ma piqûre boo xam ne sama yaay fekkeewul bañ moo doon piqûre te bu leen fàtte ni am na benn animatrice bu génnee àdduna ndax piqûre boo xam ne xamuñu luñ ko piqûre mooy euh, kii ki ki nekkoon TFM xaw ma sax nu mu tudd buñ ma piqué woon piqûre boo xam ne adapté wul ak man ba ma dee ma def ma def benn réaction euh, réaction euh, réaction seconde effet secondaire bu am effet secondaire suma nan laay def buñ lay piqué dañ lay laaj ba xam dangaa allergie si yii médicament wala dangaa allergie si yee médicament mi amuñu lu ñu ma laaj ci wàllu garab madame vous êtes allergique à des avant ñu lay piqué dañ lay laaj ba xam danga am feebar bii wala bii mais laajuñu ma dara xamuñu ba xam dama jabet xamuñu sama dara ñu piqué mënu léegi su ma fa jaaroon dee lan la ñuy wax su ma fa jaaroon dee lan la ñuy wax négligence médicale dafa weesu loolu dafa dafa weesu loolu dafa weesu loolu weesuwul dafa weesu loolu négligence médicale dafa weesu loolu nit ki balaa nga koy piqûre da koy laaj boo boo jàppee ni que médecin bi ka bi waxtaan ak moom bu jàppee ni que amut ak sago day woo yaayam ndax sama yaay moo ma gën a jege chauffeur Mbergane jegewu ma keneen ku dul moom jegewu ma sama yaay lay laaj ah sa doom ji ah amul feebar kii woo ñu ne amande ah, xamelu ma ko feebar bi lu ma ko lii doom maa piqûre sama yaay assisté ma mais sama yaay assisté wu ma muñ amul problème ma noppi ma delluwaat sama kër su ma nekkoon. génn def live si la ma Mame Diarra Fam député Mame Diarra Fam woowee li ma sama doom ma ne ko naam mu ne ma kaay sama kër mu wax wax wax wax ma ne ko kaay sama kër ma ñëw këram parce que j'ai en Mame Diarra Fam du ma ma du ma du ma du def lenn loo xam ne du sama santé la ak du dul sama bien la je la connais et moo koy xam du tey depuis Karim Wade laa xam Mame Diarra Fam donc xam naa ban genre maman la ku am xol la ku diñ la Mame Diarra Fam mu ñëw wax ak man ba ma bàyyi lépp mu sedd mu delluwaat sama kër ma jug pour dem bureau récupérer sama titre foncier loolu ma war a loolu mu tëj ma ma jug dem bureau pour récupérer sama titre foncier ba ma egsee si bureau bi ma laajte ko ñu ne ma nekku fi ma ne leen woowal leen ko dama bëgg récupérer sama këyitu kër xam nga lañ lañ ma wax toogal xaar ko man dama toog xaar ko gis euh, waa cybercriminalité ñoom ture ñëw am naa seede parce que jour boobu sama ñaari garde corps ñu ngi fa woon Babacar mi ngi fa woon Koukouma mi ngi fa woon xanaa xamoon nit lu muy wax te am seede rek dafay neex am na ay témoins oculaires fu mu yem na neex Babacar mi ngi fa woon Koukouma mi ngi fa woon Koukouma nanguwuma bàyyi parce que Koukouma mbër la mi ngi fa woon toog Babacar ngi fa woon ba mu ñëwee mu ne leen lu xew ñoom dañ lay arrêté dañ lay yóbbu cybercriminel ma ne lu tax nga ma yóbbu cybercriminel pour la lan laa def ñu ne ma dangaa am ay saaga yoo def ci internet bi c'est des injures publiques man ko yow Touré xam nga ma xam naa la pourquoi bindoo plainte adressé ko sama adresse pourquoi bindoo plainte indi ko sama kër jox ko chef de quartier bi mu indi ko sama kër parce que plainte noonu la dëkk bi dafa am yoon buñ la plainté dañuy dem ci chef de quartier bi jox ko plainte bi chef de quartier bi indi la plainte bu dee plainte bu urgente la ñoom ñoo ñëw sa kër tax ñëw leen sama kër xamuñu fi nga dëkk ma ne leen c'est faux ki leen wax ngeen plainte ma muy mbergaan mu ne ma naa ma ko xam na sama kër lu tax ñëwut sama kër lu joxu leen sama adresse kër ngeen jëw jël si ma foofu moo gënoon a am sutura ñu ne ma non non fii leen lay jël see daal l'essentiel c'est la loi fii leen lay jël see mais que yor sama numéro yor nga ko parce que fii laa ñëwoon plainte Khalifa rappeur ma dama plainte Khalifa rappeur lu tax jël si woo leen kii woo leen euh, xamante nañ parce que depuis problème Khalifa rappeur lu tax woo ma téléphone non non c'est la loi c'est la loi dag ñuy topp dañuy topp dama leen topp ñu ne waaw dama leen topp ñu ne waaw man dama leen topp ma toog ci oto bi ñu négocier négocier négocier négocier négocier négocier finalement ma topp leen une heure de temps après ci réseaux sociaux yi Nabou Dash a par la police cybercriminel Nabou euh, Mbergane article mi ngi fi naa leen ko publier après Mbergane arrêté na Nabou Dash arrestation musclée de Nabou Dash on a arrêté ñëpp di ko wax dama def la cette période la def naa la une des journaux ñëpp di ko def journal dañ maa arrêté woon pour lan parce que dama wéré di di saaga même bu ma doon saaga sax même bu même bu ma wéroon di saaga sax am na beneen taxawaay bu ma waroon taxawee mais pas nii mais anyway ma encaissé ñu dem ñu dem ñu dem cybercriminalité ñu def seen seen seen seen seen kii yooyu noonu seen audit ñu def noonu def def bind. léegi ñu ne ma dañ lay yóbbu fan pour xool sa état sa état mental parce que euh, normalement ku am des ku am dépression ak wala ku am instabilité mentale kooku yoon waxul dara ci yow maanaam daf kenn du ko tëj yàlla daf ñu yóbbu ma fan. man ma yóbbee fan la dame m'a posé des questions j'avoue que j'étais un peu stressée wax ma man ma wax man ma wax ak moom ñu delloowaat ma ñu yóbbu ma garde à vue ba ma yóbbee garde à vue ma fanaan foofu ñu xëy 6 heures du matin yóbbuwaat ma fan nee na dañ may pikiiraat ma ne leen bi moom ku ma ci pikiiraat ku mu ci pikiiraat nga am problème bii moom damaa taxaw ne seen pikiir yu bëri yi ngeen arrêté ko une fois ça passe mais là moom sa suffit. parce que vous allez ma du ma du ma nangu ñu may piqûre ay piqûre yoo xam ne damay damay damay dem ba accro médicament bi et je ne sais pas lu may piqûre j'ai refusé si laa woo Talla Diazaka Talla ñoo fekk ma foofu ak benn xaytam bu ñu naan benn transit ñu ñoo fekk ma foofu et tout ça li tax ma expliqué sama bëgg ngeen xam fi ma jaar fi ma jaar ba taxaw ba ne bëggatuma sëy bi fi ma jaar dafa bëri dafa metti képp ku fa jaar mënoo nekk nii à 100 pour cent il faut que ngeen bàyyi ma sama chemin bii ma jël ma takkali kook ma parce que mooy li gën ci man c'est dur émotionnellement c'est très dur c'est très très dur te gisuma fii képp bépp jigéen bu am sama âge trente ans trente cinq ans nga dundu lii nga mën naan am épaule pour continuer sa liggéey c'est que tu es une courageuse tu es une patente histoire bi dafa yàgg dafa métti li ci xew dafa bëri ba ci sama ëmb bi li ci xew dafa bëri li ma waaj def dafa bëri dafa bëri te dama ko wàcc ci kaamil amul lenn loo xam ne dama ko ci dama ko ci dama ko ci kii mbay Diop loo traité sa say je je viens ci question yi amul lenn loo xam ne euh, euh, euh, yokk naa ko ci parce que dama ko wàcc ci kaamin bi ma dem ba ci sama ëmb bi neuf mois de grossesse nga ëmb ko gisoo sa bàyyi doom man moo ma dal neuf mois laa toog neuf mois yoo xam ne gisuma sama bàyyi doom lim ma def dafa bëri maanaam ba mu defee li mu def noonu yépp ba ñu ànd ju boobaay ba ma ëmb neuf mois la toog juróom-ñeenti weer gisuma sama bàyyi doom neuf mois. defoon naa benn live ak Kaliphone ba wax ko mais période boobu je j'étais pas xam naa stable j'étais pas j'étais dans les émotions pourtant waxoon naa ko je suis restée neuf mois sans le père de mon fils neuf mois ma ëmb ko ma ëmb neuf mois wootewul settiwu ma lekkuma un franc maanaam dépense <laughs> yéen xamoo leen kii li ma def yëpp douze mois laa toog maanaam ba ma jug ma décembre laa ñibbi si voyage décembre laa jóge laa jóge voyage la non janvier waa décembre vingt 25 décembre laa jugee euh, laa jugee Congo janvier ba juin laa ko gis juin laa gis waa juin juin laa ko gisaat ci ma ci ci ngénte bébé bi juin laa ko gisaat ci ngénte Xaadim neuf mois yëpp ba ma ko ëmbee gisuma ko du ma jox dépense du xëy ba jox ma 1000 francs du ma woo du toppatoo du ma toppatoo toppatoowul sama ëmb. même visite médical bi du ñëw ak man benn jour la ñëw ak man te jour boobu dafa waroon ñëw pour xool da doon xool ba xam ëmb naa wala ëmb ma dafa foogoon ni ëmb ma dem na ba wax sama nijaay kii ëmbul dafay fen den sama nijaay man ëmb ma damay fen dama mën a fen dëkkal ma fu ma dëkk ak li ma ko muñal lépp ak li ma ko defal ak li ma ko xamal ak bëri te mën na ko wax te duma ko wax ndax xale bi ma noppi muñ mu ne ma damay fen ëmb ma mu ànd ak man hôpital jour boobu clinique Madeleine docteur Zayat mooy sama docteur mu ne ko sa jabar gi dafa ëmb da nga bëgg xam sexe bi mu ne waaw ñu ne ko doom bu góor nga am doom bu góor la ëmb man doom bu jigéen laa bëggoon donc bi neexuma trop parce que doom doom la c'est vrai doom bu jigéen laa bëgg ñu ne ma doom bu góor ne ko góor la non madame góor la mu ne ay man fu ma jëm góor ñi doom bu jigéen ñu ne ma góor la ñu génn oto bi ma ne ko euh, tu es content de la nouvelle mu ne ma <laughs> way doom-doom la ah doom-doom la doom-doom la ah j'ai des enfants déjà doom-doom la mu ne ko ah waaw mu am problème ma wax moom ma ne ko gis nga jigéen bu ëmbee lislaam dafa am lu mu ci wax dafa am lu la war ci man parce que tey mënu ma nekk sa jabar nekk ci buum ëmb sa doom huit mois sept mois neuf mois euh, cinq mois six mois gisuma la c'est pas bien c'est pas bien parce que tey danga may pousser def lu ma wër ta def tey su ma nekkoon jigéen bu bu bu bu forte su ma neexoon njaalo parce que jigéen boo ëmbee da ngay am les hormones t'as envie de ton mari c'est normal c'est humain t'as envie de ton mari t'as envie d'être avec lui mais ma ëmb gisuma sama jëkkër may tëdd di bokkatu chaque jour tëdd di bokkatu ànd ak yàlla xam ni yàlla moo ma ko teg te dama koy tegu parce que mënuma recul mënuma dem di njaaloo ñu may jàpp ci mbedd bi te munuma takkal salteel doom bi ma ëmb duma ko def ma lànk de dama ko def ma ma muñ ko sama yaay nag période boobu yëpp mi ngi ak man ma mère Xadijatu kenn am man aw ma sama fayu yaay sama yaay période boobu mi ngi ak man naan ma nabu bàyyi sa jooy jigéen ju ëmb du jooy bàyyi sa ñaxtu jigéen ju ëmb du ñaxtu parce que boo fi wàcc boo fi amee problème xale bi ngay xale bi ngay sóor xale bi laajte parce que boo ëmbee di jooy baaxul ci bébé bi boo ëmbee di stress baaxul parce que mu nga def fausse couche chaque instant may feebar damay feebar di feebar di wàccu dama dama doon wàccu ba neuf deux mois de grossesse dama ko doon wàccu tellement que j'étais pas bien sama yaay di ma defal ñi may reetaanloo sama rakk yi di ma kafal may ree xam nga ma am benn xale bu ma mami temps en temps ñu waxtaan sama may may soulagé wu et puis ma xamante ak Cheikh Cheikh ma xamante ak Cheikh Cheikh tamit di ma soulagé naan ma non dina jàll lu ñu def la mu ñëw xam nga rek sénégalaisement bi wax wax wax médecin bi woo sama jëkkër ni ko